ok ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel del si ak yéen ci jotaay bu am solo ku ne xam ni le 4 bi ñu jëm may incha allahu mooy màggalu Sëriñ Mbàkke Madina ibn Cheikh Mouhamadou te nag ñu ñëw seet kenn ci njaboot gi di bàyyi Sëriñ Lo di suñu jëwriñ waaye it bokk ci njabootu Borom Madina tey ñu bëgg waxtaanee ak moom dëgg-dëgg kan mooy Sëriñ Mbàkke Madina Baye Serigne Lo ñoo ngi lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ Buur ñu ngi lay nuyu te di leen delloo siyaar dinam mbégte te dalal leen fii ci kër gi ci ndigalal commission culturelle bi nga xam ne ñoo yor wàllu màggal gi ci njiital sëriñ Abdou Lahad ibnu sëriñ Ibra Mbacke ibnu sëriñ Mbacke Madina ngeen ñëwoon tey rek pour nu fàttalikoonte lu mu wërta fàtte te duñ ko fàtte muy sëriñ Mbacke Madina waaw moom nag ku neex a waxtaane la waaye ku jafee waxtaane la ku neex a waxtaane la ndax léppam yiw la waaye ku jafee waxtaane la ndax eh, li mu yor moo bari waxtaan wi itam dafay baax bi nga xamee ni bisam bii eh, dafa jege toll ci la la <clears throat> quatre ci mois de mai bii nu jëm bis yooyu itam li tax ñu koy def mooy di fàttali ko rek ndax alxuraan moo wax ne wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin suñu borom itam waxoon yonent saa sam ne ko wa kullan naxussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbitu bii fu'aadaka nee na woon yonent saa sallam doon te moo gën yonent yëpp ni ko danaa la nettali histoire yonent yi la jiitu woon loolu dana la may nga gën a sa sa ngëm gën a deer sa xol gën a deer te ñoom itam toog di leen waxtaane dafay tax yërmaande wàcc te yërmaande amul lu ko ëpp ci ab jullit inda sikri saalihiin tanzilu rahma bu ñuy fàttaliku ñu baax ñi yàlla dafay wàcc yërmaande ñun nag dama ko waxoon rek sëñ bi moom war naa wax tuuti ci biographie am rek du ñàkk waaye miin nañ loolu waaye li ñu gën di sopp ci waxtaan ci ñu baax ñi mooy ci seen jikko ndax ñu mën cee roy ndax xar yi wax ni xar baax moom lu ñu ñëpp jotuñu ko moo tax booy wax ci ñu baax ñi wax ci seeni jikko ak seeni jëf mooy lii ëpp doole ndax yoon saa salaam mi gën sax ci su borom bi mu ko yónnee da ko yónni ni ko ni ko wa maa arsalnaaka rahmatan lil alamin kon yërmande rek taxoon mu yónni ko ci lan ci ay jikko yu tedd ay jikko yu baax yoo xam ne nii ñu mën ko caaroy moo tax mu ne woon adabani rabbi fa ahsana taadiba suñu borom moo ma yar rafetal yar ba kon nag waaw suñu borom daal di wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ni comme yar naa ko ba léppam mat li ma leen digal mooy ngeen di roy ci moom rek sëñ Mbàkke Madina kuñ war a roy la mu mel ni wax nañu nii mi ngi gën a àdduna ci Touba am na ñu wax njaareem waaye Touba moo gën a wér ci 1913 ñaari waay juróom xam nañu leen muy Cheikh Mahmoudul Moustapha ibnu Seyxul Xadim ak soxna Aminta Lo bintu sëriñ Abdourahmane Lo mu mel ni way juróom wu jigéen itam kenn ko ne xam na ko bokk ak soxna ma soxna sëriñ Maam Thierno Mbacké waa juru maanaam maami sëñ Mbacke ma am sëñ maam Thierno maam la ci moom soxna Issa Diop muy maamam kon mu mel ni diggante dafa newaat ci diggante ndaam ak kokki kon cër bi moom ci sëñ Touba doy na sëkk waaye mu cëruwaat ci kër yu mag a mag kooku loolu nag dafa daan nekkoon ni kon wal baladu tayyibu yuxruju nabaatuhu bismillah wala si xabu sax laa yuxruju illaa nakiran maanaam suuf su tedd su baax képp ku ca bay am mbay mu rafet mu mel ni way juram itam mooy ki nga njëkk a woot wuutu Seyxul Xadim ci xilaafa gi doon koo xam ne jàmbaar la joo xam ne nii bu ñuy wax yoonu murit tey jii mu taxaw ba egsi fii ñëpp war nañ koo sant ci taxawaayam ci li mu liggéey ci yoonu murit jumaa ji bokk na ci sos ko li ko sëñ Tuubaa digaloon indi raay bi jël sëriñ Tuubaa delloo ko yar njaboot gi mu fi bàyyi woon kooku nag ku mi sa waajur am nga responsabilité moom nag ki ko di ko xamee ni yàlla dogal na ñëw na nekk na àdduna ba war a toll ci jàngi tey jàng di farata ndax su borom a waxoon ni iqra bismi rabbika way juróom da koo jël jox ko sëriñ maxtaar ale loo seen tundéer yi mu jàngal ko alxuraan moom ak sëriñ Cheikh Mbacke magam ja nga xam ne benn lañu woon ak ñeneen sëñ du Baara ca la woon mu nekk fa ay at bariwut ñu jàng alxuraan mokkal ko lool man ko lool sëñ bi jël leen yóbbu leen delloo yóbbu leen ci seen maam seexul xadim ba ñu demee seexul xadim bég na ca lool mu daal di leen di tariloo alxuraan wax nañu ni sëriñ Seex mi ngi ko tariloo suratul Aqmaan sëriñ Mbàkke Madina mu tariloo ko suratu Sajda dañ ko taree sëñ bi bëgg lool ndax ku xam sëriñ Touba xam ni léppam alxuraan la mu alxuraan moom mooy léppam kon boo amee njaboot gu mel noonu ñu mën alxuraan ci ndawe loola mbégam la mu digal leen nañ leen nañu dem te waaj bind ay kaamil bañ ca jógee xam ngeen ni xam-xam dafa am solo yonent saa sallam moo wax ne utlubul ilma walaw bi siin da ngeen jàng xam-xam doonte da ngeen di dem ba siin maanaam ci sorwaay bi la ci jublu wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima xam-xam dafa nekk farata ci jullit bu ne bu góor ak bu jigéen mu yóbbu leen jox leen sëriñ maxtaar jàng goyaar ca sura mu jàngal leen ñu jàng fa xam-xam ba moom ci boppam moo leen delloo si wane leen aa ah, sëriñ bi ñii nga ma joxoon day lu ma xamoon man xamal naa leen ko kon am nañ xam-xam waaye taxul sëñ bi loolu doy ko ci daa bëgg ñu gën a yokk ba mbooleem lu doomu soxna yi nga xam ni ñoo góorgóorlu loolu la ñu xam ak li ñu doon mu la ko mu jël fa yóbbu leen gànnaar jox leen Ahmad Jam Asan foofee def nañ fa juróom-ñetti weer di fa mottali seen njàngum xam-xam ñu fa jógee itam doon ñu indiwaat leen bi fii ci Jurbel pour ñu mën a gën a rafetal seen xam-xam ñu boole leen ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Dem ci Jurbel mu nekkoon alim boo xam ni alim kulli fannin nga xam ni sii ci senegal ñëpp xam nañ ko ci man alxuraan ku a alxuraan waaye am xam-xam ku mu am xam-xam daanaka koo gis rek ci génération ñu dul mënul sax jànge nañ ci moom waa sëñ Mouhamadou Dem waaw mu yeesal mu maanaam toppaatal leen yenn téere yi waaw bañ fa jógee itam taxul mu doy sëriñ bi indiwaat leen tuubaa ci sëriñ Habibu Mbàkke nga xam ni koo gis daanaka moom itam jaar na ci yoonu Mbàkke wala ci kilifa yi jaaral na fa njabootam ngir xam-xam waaye ngir barke ngir barke ba ñu jàng fa ñu moom itam mu topp la topp toppaatal leen ndax boobu jàng nañ ba noppi mu toppaatal leen yenn téere nga xam ni kon léegi daay man nga ni kon bu doon daal am njàng danga nga naan maanaam ci yoon njàng bi ñaan ku nga xam dafa am ay cycle da daan jeexal nañu cycle yëpp léegi léegi nag loolu mooy li jiitu mooy xam-xam bi ñu noppee nag sëriñ bi ni leen kon nag li leen di dénk ngeen jéem a wut ku leen doy ngeen jox ko seen bopp leen di ñu jël seen bopp xam ni seen bàyyi doy na sëkk waaw maanaam doy na sëkk ci kiy wut. jox ko seen bopp lu ci moom lu tax pour mu defal leen ak tarbiyatu wa tarqiyatu ndax jàng baax na waaye eh, maanaam yéeg yar nit ki ak yéege ko ci suñu boroom lu ko ëpp loolu moo tax seen woy jur mi nga xam ne sëñ Tuubaa ko yar daal di def loolu moom itam ci moom ñu xam ni xam-xam kenn du ko doon ndaw ñi war nañ cee jànge loolu xam ni bu doon xam-xam dañ koy donn kon ñoom ñii duñ jàng dañ koy donn moo tax war na yee ñi toll ci jàng ñu gis ñi fi ñu jaar ci marxala yi jaar ñu xam ni kon góorgóorlu euh, lu jaadu la moo tax waykat boo xoon ni taxallam fa laysa al mar'u yuladu aaliman wa laysa axul xilmi kaman huwa jaahilun wa inna kabira sinni laa ilma hindahu saxiirun ida mattaxul nee na woon demal nga jàngi ndax kat lu ne mën nañ ko doon dañ doon daraja dañ doon alal dañ doon lu ne waaye xam nga kenn du ko doon mu ni waaye kat yow mi amul xam-xam jàngi woo dana am bis yoo xam ne bu teewee kenn du la diglu nee bu boobaa boo doon mag itam ca gune yi lañ lay boole moo tax ñoom suñ wajun xam loolu jàngal leen suñ borom waxoon ni xul hal yastawi allazina yaxlamuun wala si ne laa yaxlam yàlla la questionné woon nee na waa ndax defe ngeen ñi xam maanaam daa leen yemale ñu xamut déedéet yemuñu bokkuñu kon loolu moo tax euh, ñu dem jàngi woon loolu ma wax ko ci seen tuut ci seen jaar jaaru kii sëriñ bi nag li ma doon wax lépp solo ci moom mooy ñu roy ci ay jikkoon sëriñ bi nekkoon na ko ragal yàlla ku sàmm ba ci jamonoom saa yoon ne Serigne Mbacke mat bi ñu ko xam ñëpp boo tuddee tur yi rek baax lañ ci mbaax lañ ci yëg ci moom waaw koo ni Serigne Mbacke mat dina rek li muy njëkk a xalaat ci moom mooy baax ragal yàlla googu nag mayoon ko daraja joo xam ne nii ndax boo ko see ragal yàlla rek. yàlla da lay daal di jagleel mbooleem lépp mooy bu dee xam-xam suñu boo ne wattaqullaa wa yuallimukumullaah yàlla nee na bu ngeen ma ragalee rek ma xamal leen yàlla xam-xamal ko xam-xamul la duniya yàlla ni wa man yattaqillaaha yajcal lahu maxrajan wa yarsuq min xilat nee na ku ma ragal ma di la wërsëgale fa nga nekk ak fa nga foog ak fa nga foogul moo tax ma nga fa mu nekkoon yàlla di ko jagle suñu boom jagleel ko mbooleem lim bëggoon di ko fekk su borom ne wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'aati wa yusim lahu ajran ku ragal yàlla yàlla nee na danaa la jox jéggal la bakkaar ba doo benn bakkaar waaye nag danaa la jox ay màggal dafa lay daraja yu rëy loolu nag lu am solo la ñoom saa si waxoon na itam ni laa fadla li arabiyin ala ajamiyin bi taqwa nee woon ku ñuul wala ku gën wala ku weex gëñantewul lul ci ragal yàlla ndax suñu borom a ko ci alxuraan ne inna akramakum inda allahi ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen sëriñ bi nag looloo taxoon mu nekkoon ku ragal yàlla ku sàmm ci lépp nag mu nekkoon itam ku takkoo woon ak alxuraan yi nga xam ni seexul xadiim we maamam alxuraan rek moo doon léppam bari na lu mu ci wax waaye comme émission bi daa gàtt yaa kitaaban karimi an tax bi ak yeneen yeneen yeneen dégg nga wax nañu ni daana jàng ñaari kamil ci bis am na ñu wax ni Cheikh Momadou mustafaa ci mujjam dafa xawoon a wéradi yàlla dogal mu ñëw fa mu ni ko damaa bëgg nga jàngal ma kaamil de ñaanal ma ci mu jàngal ko ca suuba sa mu siwaat mu ne ko ah sa ñaan ga de am na sol jàngatal baneen mu jàngatal ko baneen mu gën a tane mu ni ko saxal ko ñu nii moo tax mu saxal ñaari kaamil yi am na benn version boo xam ne itam da leen a moo moog Serigne Cheikh ñu kenn ku ne nay jàng kaamil te booba Serigne Cheikh moom itam moo yoroon xilaafa gi yor itte yi di doxal mbir yi daanaka man jot ga mën naa mën a ko may loolu mu ni ko baal ma féetewoo sa bopp kon ñaari bu ci ne euh, naa am nekk kon loo xam ne mën na ko mën naa mën naa bu ci mën naa ne rek waaye benn benn la ci ñoom waaye bu ci ne da nga yëpp lañ nettali waaw baaxoon la ku tabe woon la ku maandu woon la ku mënoon a muñ la ku selloon la ku dëgg woon la ko doon dépensé alalam ak temps ci doomu aadama yi la woon moo tax bokk na ci li nga xam ni tax na doomu aadama yi fonkoon ko ndax nit kat am na loo xam ne c'est personnel say julli ak say woor loolu sa diggante ak sa borom la waaye social nag mooy li nga xam ni da koy jëmale ci yeneen doomu aadama yi ndax suñu borom wax ni wala asri inna al insana la fi xusrin illa allasina amanu wa amilu salihat kon ci ma joxoon mi ngi bëgg a jeex ma wax ci ay réalisation sëriñ bi loolu lépp amoon i tool la ci dëkk yu bari di ko doxal agriculture waaw bokkoon na ci yim def yi tamit lu rëy mooy yu may Daaru Xudoos jooju moo ko defaloon nga xam la sëñ Tuubaa dugg woon xalwa xalwam boobu keroog bañ koy ubbi bañ koy fondement sëñ Abdou Lahad dafa ñëw ñu doon xool sëñ tubaab fa mu defoon xàmme ba ñu dox ba mu yàgg sëñ Abdou Lahad ne ko sëriñ jiitul xam nga xàmmikaay bu fa mu ne ba mu demee moo gas ba génne ko kon yaakaar naa moom itam fa tabaarakala loolu ci liggéeyam la jumaay Madina ji itam moo koy yeesal kërug njeereem gi yeesal na ko li kërug di gii nga xam ni ci loxol sëñ Modou waa euh, alalu sëñ Modou Fall génnoon na ci ñoom ndax état bi leen a dédommagé woon waaye bi mu dikkee te xam ni moom bu sañoon yëfi sëñ Modou Moussa yëpp bu ko bàyyee ba ëllëg leneen di fa xew ñeneen di fa dëkk ñu war a dëkk dafa jaar sëñ Abdou Lahad laaj ko sëñ Abdou Lahad daal koy waxal Abdou Diouf mu ñu jaayaat ko kër gi mu jël kër googu tey ji def ko ci turam ba mu nekkaat alal li sëriñ Touba. taxawal na ay ay ay ay ay dëkk yoo xam ni dafa daan yar ay taalibe mel ni Daaru Minam Daaru Rahman ñaamal Kayal Madina sëñ sëñ Mbak sëñ Modou Moustapha ko sosoon jox ko fa kon dëkk yooyu yëpp taxawal ko woon loolu nag liggéeyal taalibe yi di liggéey ak mu leen di defal tarbiya ak taraxee di leen yar ku amoon relation la itam ak waa kër sëñ Touba yi muy sëriñ Fallou muy sëriñ Bachirou. muy sëñ Abdou Khadir muy sëñ Abdou Lahat muy sëñ Moutala waaye comme temps bi may nu kenn ku ne mënoon naa wax li mu ak yow waaye damay bañ comme neen nañ ma presque jeex ma benn minute du la yooyu kon nag kooku yàlla nañ ko yàlla fayal. man daal damay wax ne léeg bu may jàng téere bi ñuy wax xol bu kaaw sëñ Mbàkke man ndek sama xel dem ci li nga xam ne loolu la sëñ Tuubaa waxoon ci xol bu kaaw waxaale seedeeti am waati ñooñu mu waxoon daal jaadu nañu leen di jooy di leen fàttaliku ndax seen taxawaay baasamaan ak suuf sax def na ko man foofee laa koy dugal yàlla nañ ko sama boroom fayal noo ngi siyaar nag ak njabootam njabootam itam yàlla suturaal na njaboot gu mu fi bàyyi ñuy njaboot gu jub njaboot goo xam ne nii nuur nañ ko ci lépp ndax kenn du leen dégg ci dara rawatina xalifaam bi ñu ngi koy siyaar sëñ si ak Bombali ak yarakam ma tudd ci yu mel ni sëñ Ibrahima Mbacke ak sëñ Cheikh mu ndaw ak mbooleem mbakk yi du ma fàtte nag sama sœur bi nga xam ne moom ñoo bokk ba jur bu soxna mi Mbacke waa waa sama maam bi maa ngi koy siyaare mooy itam di siyaar ay bokkam yu jigéen yi mbokkal sëñ Mbàkke Madina di siyaar mboolem njaboot gi lépp di ñaan bis bi nga xam ni la kat la ñu war caa dem yàlla nañ sa borom may ak tal ak kattan ban nañ faa dem te taxaw ko di leen sant yéen tam uh, sëñ géwal seen site bi maa tudd maa ngi leen di sant ndax yéen tam lii dégg naa at bu net at mu jot ngeen def ko bien que bu ngeen bokkee ci kër gi itam yéen a ngi liggéeyal kër gi kon maa ngi ñaan yàlla na dem ba nekk ay télé yoo xam ni tey jii yàlla nañ ko fekk ñun ñëpp te jëriñoo ko xam naa temps bee gàtt rek nekkoon ñu gën a tas yenn yi di sant di gërëm yàlla sama borom dimbale nu bi jaay xadim xadimi rasul wa sallallahu wa sallama ala sayyidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi hudu xadim jasakumullah xayra jasa jërë ngeen jëf